màggal la waaw waaw la ilaha illa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 sëñ Fallou ñoo ñëw di nukk sukk sa kanam di jébbal waat di yeesalaa su njébbal di la nuyu di la ñaanal yàlla yàggal la fi lool te wér di nuyu soxna Cuba mi nu jiite suñ toogaay tey bi dañoo ñëw yeesalaa su du njébbal ci yow ak tax tak dool dooli waa laxasaa soxna Cuba dañoo woo fan yee passé le 17 bee passé créé benn groupe daa bëgg def fondation Yaay Fall soppe Yaay Fall sëñ Fallou Fall yi ñun ñëpp ñu laxasu taxaw ànd ak moom sawar ci lool nag ndax li ma wax la fi tóolu ku liggéeylu sëñ bi rek wàcc nga liggéey sëñ bi rek moo fi nekk dañoo sant yàlla man ci yàlla xiiree ñaanal la lool nga yàgg filal faal ñaanal soxna Cuba mu nu jiite ak ñu ne ci ëtt bi yëpp nag ñu soxla dañoo laxasaay ñoo jébbal sunu première ziar ci weeru koor bi ndax le 17 bii passé lañ ko sos yàggu nag waaye jaayante nañ tey ba li ñuy wax rek sëñ bi boo ko lebalee guddi boo ko lebalee ker mu fay la guddi yàlla dimbali ba tey yàlla jàppale da am nañu tey jii juróom benn fukki jur ñëw fësale ko jébbal ci bis bi yaay bëgg nag chaque année nga ñaanal ñu ñu teg fi ay mallette jiital xar yeeg gileem yeeg nag yeeg ginaar yeeg yëpp ñoo jébbal la ko defal si liggéey bi ndax sa taxawaay rafet na lool faal yaara yëggeeg safoo bi ku sa taali bu da koy nemmeeku lu ñu gën a neex si yow foo seen nit di ko lijjanti soo ko jëlee sa yaay ji téléphone woo la sama classe soxna jaara foo nekk tooñanteeg ñëpp ko dañ lay ñaanal nga yàgg fi loolu te xam nga ne yaa ñu jaboote téye ñu sonu cubba ñoo xam ne li lii moo war ndax jigéen ju nekk yaay jàppale sa borom ko ci li mu nekk mu ñëw ànd ñun ñëpp tamit ci liggéey bi sooñu ci sooñu boppam bàyyi ñu lépp nag xoolu seetu ni lu leen lu leen neex def leen ci ànd naa yéen te lépp xam ne ñun liggéey sëñ bi doo nga moo ñu ñoo la wax si biir néeg ba léegi rek ku liggéey ku du sëñ bi rek wàcc nga ko nag sëñ bi doo nga fi nekk nag dañuy santaat yàlla bu baax nag buñ ci yàlla xiiree boole ñoo yow mii ñu lay nga yàgg fi lool di jéggal wàcc kàddu yu baax nag di santaan ñëpp nag képp ku dugal sa ñaq rek yàlla ko yàlla fulani bu déwénee nga ma dugal ay millions ñaan nañ yàlla daal ñu fi la fi wàcceel ay oto ba nga ni soxna yi lii defe naa liggéeyaloo ko la ñuy ñaan ndax sonu ñaanalee ko mën bu sooba yàlla te ndoorte goo séen di soxna ci ba day door sant nag groupe bi ñu bokk liggéey bi yëpp jigéen ñoom ñëpp soxna ummi mu nga jógee ba Kaolack waa Dakar kenn bàyyi ñëpp ñëw daal taxawaay ku nekk ndax sa jëmm ak jëmm soxna Cuba ak liggéey sëñ bi rek la ñaan nga yàgg fi lool mbaa faal te wér di ñaanal mbooloo mi yëpp nag képp ku fi dugal sa ñaq rek yàlla na ko fële mu nekk ay millions bu déwénee bu fi toogaatee ànd suñu déguisement yi ñoo fi jaayantee yow xam ne sëñ bi doo fi nekk di jégalu waat baax ci kàddu na xam ne wax ci mbooloo yombul sant ñëpp gërëm ñëpp nag di ñaanal ñëpp tawféex ndey caa taxawaay rafet na yéen ñëpp na suma ma limee du ma képp na ci groupe bi rek gërëm naa la sant la ñaanal la ndax boobale kenn noppaluwul ku ne yaa ngi dugal sa ñaar dërëm sa ñetti dërëm sa juróom kon yàlla doon ay millions ci barke Serigne Fall ci barke weer wi ñu koy def sëñ Fallou Fall moom sëñ Modou Fallou Fall ñoo ngi lay siyaare te di la ñaanal gudd fan ak wér nu bokk ko di la ñaanal yàlla yàggal taxawaay bi ndax noonu sunu xol dafa sedd sunu xel dal ndax kat kër gii dama leen di wax naan leen gone yi jóge mboojeen romb fi jëm ca teen ba di rooti sax boo fi rombee di nga fi jëlee jikko waxuma na ku dëkk ci biir kër gi tey taxawaay bi sëñ Modou Fall Fall taxawoon tubaarkàlla macha allah yàlla na yàgg te sax moom nga taxaw mbaa nga dugal fi sab tànk yaakaar naan réeru ndax lu ci nekk dana dem ci Seex ci Seex Rafaal mu dem ci Sëñ Tuubaa kon yàlla na yàgg te sax ndax nun sa waajur moo nu yar ci loxoom xamal nu ak taalibe xamal nu lépp sunu baay bu baax ba Seex Rafaal yar ko ci loxoom ba mu jóge fi mu ànd ak Sëñ Moodu Saafaal mu doy ko ci ak njabootam lu ci bari moo ko def ci ak njabootam te loolu lépp sa maam ju baax jaa kon nun dañuy sant nun bi nu àndee ak yow ndax Sëñ Moodu Aminta Faal kat dara mosu koo ñor lu dul dara mosu koo ñor lu sëñ bi dara mosu koo ñor lu bëggug sëñ bi kon noonee mu taxawee woon na faal nga taxaw ne yàlla na taxawaay bi yàgg te sax te wér. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci tur ak saw sant. di jital ci nuyo bi ak siar bi nak jëm ju bax ji tok ñu diko xolé jëm jëmmi Cheikh mohammed Falilou Fall di xol xool yeen ko daan xol diko ñaanal yalla suñu borom ak yag aduna ci mom ak wér gu ay ndamam ci kër Cheikh ibrahim Fall tam ànd ko ak njabot gep ña ci jiitu di rakkam yi mbokkal bokkal sëñ Modou Aminta ak taalibe yi bu ngeen gisee sunuy kàddu nag fii ak jataay bii ni mu deme sëriñ Falilou Fall jëwriñu sëñ Modou Aminta moo toog nii waaye dend ak rakkam di ab taalibeem di mbokkam di léppam muy soxna Cuba Fall Mum Serigne Cheikh Fall bay gor bokk gi yalla ko def talibi giit yalla ko def lu ci nek nak xam ngeen ko japp ngeen ko dundal ngeen ko ndax li mo doon gu waajur ya Serigne Cheikh Fall bay gor mo mag ci njabotu Cheikh Mamadou Moussa Fall waaye sëñ Modou Aminta Fall topp muy mag ak rak doon ñaar ñoo xam ni yàllaa leen waajal yonent bi waajal leen Serigne Touba waajal leen Cheikh Ibra Fall waajal leen waaye Cheikh Moussa Fall waajal leen kon ñaar ñoo ku nu waajal faaw di nga am ndam te Cheikh du Falloo waajal sëñ Fallilu waaye soxna Cuba sëñ Cheikh Fall baay góor moo ko waajal. sëriñ Falilu lu nekk toog na ci sa kanam ci réew mii ñu nekk nag ak bitim réew ci loo xam ni ci sa waajur la doole woon ngay ànd moom di dem bitim réew di ànd ak moom di wër réew mii mbooloo mu nekk teew ci sa kanam jëf ju nekk ñëw ci sa loxo tey jii nag. loolee ñu daan def danoo bëgg mu gën a dooleeku waaye dara du ci deltu ginnaaw moo waral soppe yi nga gis ñu àndandoo soxna Cuba Faal ni ma ko waxe di fondation soppi sëriñ Falilu Faal mum sëñ Moodu Aminata Faal yàlla na saa borom li ngërëmam ya te gën la fee yàggal ni ko soxna si waxe léegi maam daam faal daana wax ni gaynde amul góor a jigéen boo dee ba ci digg manding ma bu gaynde sabee soxna cu badu ni sëñ Fallou nan xaar ba xam gaynde gu góor la wala gaynde gu jigéen la kenn ku nekk dangay seet foo mën a jaar ba dem waaye doo xaar ba xam góor la wala jigéen looloo waral soxna cu bade yi ko fi indi woon ngir muy wut si ngërëm ci jëmm ji toog booba ak tey nag lu doomu aadama war a def baa lu ab taalibe war a def ca muy lu soxna cu xam baa mu doon lu mu man bu xëyee ci lay xëy bu gonte ca lay gont doomu aadama la nag lu jinne du malaaka waaye ku amu bëgg la ku amu xër la loolu jëmm ji ñuy wax kàddu yi luñ ci xam mënu ko gën a xam moo waral bi mu nekkee ci liggéey bi xel yi di dox ba keroog le 17 bii jàll mu am lu xalaat man mii woon na ma wax ma ko soog leen a woo wax leen ko dama bëggoon liggéey bi ni liggéeyal Serigne Fallilou ak Cheikh Ibra Fall ñu am luñ ci dolliwaat ndax dañuy sosaat. dafa am loo xam ni muntu ñàkk te lu muntu ñàkk faaw mu am bëggoon a seet ci taalibe yi liggéey boo xam ni dama koy dolliwaat liggéey boo xam ne dañ koy dolliwaat ci liggéey bii ñu doon liggéey mooy fondation soppe Serigne Falilou waxtaan ci yéen wax nim ni mu ko bëggee ngeen ànd ca ak moom nag moo waral tey jii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor wi ñu daje si fii si yow bëggoon liggéey boobu liggéey yëpp rëy waaye kenn ku ne xam ne ni weeru koor ab liggéey la ci biir liggéey ci liggéey bépp faal dafa tege ci sa kaw. ñoom ñii de néewu na koo xam ni bi weer wi teroo ak léegi sukkul fii ci sa kanam jox la addiyaam ci liggéey bi waaye ñoom nag ñoo wëbli ko waat bëgg am loon beraat ngir bëgg a tibbe ñaari loxo muy réew mii nag ñu nekk faal nga nekk fi ak ñun waaye ak waa bitim réew soxna Cuba tàllal na loxo kuy soppeeb sëriñ Falilu ci dégg naa soxna si la wax léegi ñun waa Congo ku woo ci yow. na sawar waye kon bu yob nga jall wour senegal bam daj seigne Fall lo wote ñu bari dina ci sawara ñew wa bitim rew dina ko xol waye bu nu leen leen gënal ni soxlu ci ba def lañuy def ñëw sukk fii fi yow and ak mom jotaay bi yëkëti al te ko sa loxo liggey bobu nak soxna yi tok ñepp di sa njabot soxna ci ba daa wax ni boo doon xool mbooloo mi bu téeméeri nit fi ne tolloogun na ci ñaar téeméeri nit boo doon seet da naan fukk yi ñoo jébbalu ci sëñ Fallou la ci des lépp ay soppe lañu waaye lu ne wax na ko ci ab soppe ab soppe kat mën naa am ca lam sopp loo xam ni kësu ku jébbulu du ko ca am ndax mbir boo ko soppee nu mel da lay neex kon soppi yii noo mel neex na liin moo tax bi leen soxna Cuba Fall tàllalee loxo ñoom ñépp dañoo jug fa yéene ànd ak yow ci liggéey Cheikh Ibra Fall bii nga nekk te jàppale li ci biir ak ci biti. dama mas a fekkee sëñ Saalihu Mbàkke yónnee fii di woolu sëñ Modou Aminta Fall sëñ Modou làmb ci poosam. neexal ka ko woose ni ko yow mi ma woose yow ma neexal la ndax damaa defoon ne sëñ bi xamuma li sëñ bi man nag mënuma ko waaye may sëñ bi maa ngi sant maa ngi santaat woo bi nga ma woo ndax kat boo ma woowul woon it nag am li nga bëgg waaye fa nga ma teg baa dem teet bu ma yat yati woon nga ne ma far ko bàyyi lu ko waral naaj wi nga ma yërëme dama fay jóge léegi damaa wàcce ci ote bi ma duggoon mu woo ma mu wuyu ko mu ne foo toll ma wax ko ko mu ne tek ma xam ne damaa bëgg ne kon demal ma ne ko de suñ waxal li nga bëgg ma def ko mu ne ma kon ñëwul waaye xam naa ne damaa naroon ni gannaaw sori nga nangam lu koy waral yërmande rek kon nan ko ñaanal mu yàgg fi te wér na kenn ku ne wax sëriñ Fallou Fall mii yàlla na fi yàgg te wér ak jëwriñam jii ak mbooleem rakkam yi ah soxna si yalla ni yàlla na yàlla gën a ñu koy bind wa soxna ci ba nak mom la tuddé borom ginaar yi ci kër gi borom ginaar yi boko déggé nak buma ko sant gay mba mbeng di yedd da am luma ci xam moo tax waaye yàlla na man ak ki mo koy defal ak ñi mo koy defal. ah Serigne Moustapha dafa wax lo xamni kenn mënu ko rombu ma fekk nak soxna si wax ni. ci diggante gaynde gu góor ak gu jigéen ma di xamal lislaam naka jekk jigéen a ko daan car yonent bi alayhi bi mu wootee jigéen ko jëkk a wuyu muy soxna Xadija bañu ko koy may mustafa amul dépense da doon sàmmaan ñu di ko fay ñu di ko jaayloo te jigéen ko noonu liggéeyloo te mooy xayra xalqulaahi li yàlla bind moo ci gën mooy sangab xaadimal Moustapha mi sangab Cheikh Ibra waaye jigéen joojee nag moo ko doon liggéeyloo di ko fay ba di ko jaayloo ak di ko sàmmaloo ak juróom waaye ba mu ko defee it nag te yonent bi alayhi salaam di kilifaam da ko ni bul xool ne ma toll man jigéen ñi ma jamonool maa ci daq te am naa wërsëg buur yi yabuñu ma waaye fam naa sama am-am ak sama jëmm jox la ko loo soxla wax ko ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko loola moo dikkaat fii jigéen ñi mënuñoo ñàkk bokk ci lislaam moo gaynde góor ak ku jigéen lépp gaynde la bu fekkee nangu di gaynde moo tax boo déggee ju yaafus ne ca àll ba naan man jigéen rek laa daa gisul jigéen ju yemul ci rek mhm. yéen du ngeen jigéen rek Jigen ñi bok ci ñi wara feñ liggeel yalla ci ngeen bok yeen waye fi ngeen koy dugalit nak yalla na fi ndax da ngeen fee fek ko xamni ki fawul fawul limu li moy Cheikh Ibra ta Cheikh Ibra sëñ Bamba Bamba rasulullah alayhi dañuy wax ak càll la diggante yonent bi alayhi ak ñeneen ñi ton ay serif am ko tak tag serigne fallu di wax ni nangami nangami càll la fi jaar ba lim jurum ñaar fukki mam do rendi mustafa muy mamam maneka ah, yow de li nga wax silsila la de rafet na de mu ma ab sërif ko bind de ma ne ko wax lima bëgg wax kiko ko bind moo raw sërif mu ma li nga bëgg wax ma li nga wax da guddou serigne serigne fallu mi gëna bi lu gëna lolou ma ne ko fu ma ne ma fu mu ne ma ne ko sëñ Tuubaa ko bind ma ne kon dëgg la te waxaguma sëriñ Tuubaa moo ne bayni wa bayna rasulillahi laysa bi waasitatin man Ahmadou Bamba sama digganteeg yonant bi am lu digale kenn jaaru fi man Moustapha yàlla kon da nga naa sëñ Fallou sëriñ Tuubaa rasulullahi loolu moo dal kii nekkal kii nekkal dafa liggéey ba am ngërëm. tiitaroowul ni barab sàngam laa laa feeña jamono. dafa liggéey ba am ngërëm waat na it boole ca ba wàcc. ba muy waat ci kanam wuy juróom ne ko bu ma fi naree des di yàq dara ci sa ndigal naa la jiitu barsàq boobu bu fekkonte ne dara dara na ci du ko jig moom te moom moo ko def moom mii moo sukk ci kanamu Cheikh Amadou Falilou sëñ bi ne ko fàllu lu mu doon mu ne ko damaa bëgg faal bu fekkente ni bu ma la mujjee ginnaaw dama yàq dara ci sa bëgg naa la jiitu barsàq loolu ku ko narul doo ko wax waaye ba mu ko nee jóge lii loolu du am yaakaar naa ni la mu waxoon mi ngi ci fas li yéene fu sëriñ fàllu fu seex mudd fàllu ma sa teg tànkam ak bëtam ak jëfam ak pastéefam dina ko def moom day dogu ci dof def ko kon yàlla ko yàlla kartanal ci barkeb sëriñ tubaa ak Cheikh Ibrahima Fall barke booy juróom bi ah yow nag sonn ci ba lii euh, sëñ Moussa Sylla sama doom ji wax ba àggale ci yéen njabootug Cheikh Modou Fadilou gii di njabootug Serigne Cheikh Fall Baye góor des mun ta wax lu ko gën a kawe jaxasoo jaxasoo rek la te wax na jaxasoo gi ba noppi waaye li mu ni am nañu nekk barsàq te dañoo wax ni dañoo bëgg a dellu si àddina wa arxabul asyaa lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati walaw suwayhanat faqat li yamaloo saaliatan tan fahum in xafaloo yéen yàlla dimbali na leen ca waaye dellu si gi da ca am sart yu Sëriñ Tubaa wax ñu ne xanaa ñette xéwal a tax ñu bëgg a dellu si Sëriñ Tubaa ne ña seeni di baawaan sax ñoo gën a bëgg a dellu si ñu nekk ci ngël ñu ne waaw lu tax mu ne dañuy gis loo xam ne ñoom daañu xam ne seenu njàmbaar mayu leen ko waaye la ñu ne woon jig na leen ñu ne aka neexoon nu dellu àddina ba yokk sunu loxo ca lan nekkoon ca ñooñee ngeen di bokk yéen bokku la ñenaan suma ma du ma ko def lii suma ma amu ci xanaa suma sama loxo rek li sëñ mustafa ni amul amul commentaire dañoo sos ci miir bi te miir bi mëne su koo tëb ku yóbbu ci rek nga fi def mbaa nga bàyyi rek. kaay leen nu liggéeyal Cheikh Ibra foo ko jëmee ci Serigne Falilou Fall nu mu koy def ma nga jëm ca seexi Cheikh ra àgg ci Serigne Touba loolu moom moom ci la yaru ci la màgg ci la dund ci la deratu mool ma sa gis ak bëtam mu mënta gis leneen dafa am loo xam ne nag nit dana ci egg nekk goo xam ni bu ko bëgg na soppi sax du ko man gis nga sëñ Fallou mii. Mhm. ak seen Moustapha ak seen rakk yii. Mhm. bu ñu demaan ba bëgg a soppiwu def yéen duñu ko man señ bi tek ne len ci ray bi ta ray bi amul kay tu droit ba ca gar ba rek kon yàlla nañu an yag and ak nun te ñu gën ko man ci barke maam Cheikh Rafal barke Cheikh mudou Falilou Fall mu jaayante ak wayjuram ba ba waajuroon nangul ko jaayante ga mu wat ba wat ñu do ko tofal mbolo mi moom bàyyam da koo wóolu yël na kóolteef gi la jël tam Cheikh Mamadou Lamine soxna yu tedd nga tàmbalee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam na nga xamante ni maamam Ceera Faal jigéen ñi ko jëkk gëm ca ndar soxna Faat Jóob Mbañik ànd ko fonctionnaire fonctionnaire ba di français wàcc bàyyi ko ak ay këri étage ca ndar étage ya ca loodo ak sundooni ko dem gis ko bàyyi koog wata ca yooyu jamono bàyyi koog compte bancaire ca yooyu jamono maam ci Ibrahima Fall ñëw ndar soxna sa jaay étage ya jaay wata ba tëj compte bancaire ga jóg commande Cheikh Ibrahima Fall te booba alal yombul kon lii ngeen def jigéen a ko jëkk a defante ak maam Cheikh Ibrahima Fall maamam te kooku bukkul ak moom dara rawatina nag koo xam te ni yéen a bokk deret yéen a bokk ak bëgg yéen a bokk ak bañ soxna Fall jërë ngeen jëf kii yéen kat liggéeyu leen ci Mamadou Fallou Fall mii seen bopp ngeen di liggéeyal la saa baay waxan la mu waxan ne magum Cheikh Serif laa wax baayub Cheikh ak Fallu Faal waa moom mbéyam Cheikh Bamba tax ma taatan fi Kawsara yéen ñii yéen a bokk yéen wajur yéen a lépp soxna Faal kon man dama doon kàndang yal na ànd bi yàgg yal na taxawaay bi yàgg soxna si sëriñ baa ngi nuyoo di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen soppay Cheikh Mamadou Falilou yii ki seen jëwriñ ji di soxna Cuba Faal sëñ baa ngi leen jottale kàddu yu nuyoo bu baax a baax ak kàddu yu ngërëm ak kàddu yu cant ak kàddu yu ñaanit a tàmbali kat lu yomb la waaye àgg nag soxna Oumy Gueye moo jafe kon minyan bi tambli minyan ngeen tambali mi ngi ñaan ci yalla suñu borom mi nga xamni lepp moko tambali namu tambale lon sallallahu alaihi wasallam sallam ko Serigne Touba tàmbaleel ko Cheikh ibrahim Fall soxna Cuba Fall seen tambali bi yalla ci tabbi ci tambali yoya yalla saxit barkel noon bu mag bi nga xam ni lu yàq moo ko yàq. mooy seytaane. yàlla na bum am ci ndaje mi aw yoon. yàlla na bum ci man dara it. nee nag du tee yéen li ngeen ci bëgg yéen. nee tey nu ngeen ci bëgg. te yéen. te yéen te yéen li ngeen ci bëgg. suñu borom defal leen ko ci. te yéen li ngeen ci bëgg ci ànd bi. suñu borom defal leen ko ci. mooy ànd bi yàgg. ànd ak wér. ànd ak wér. ànd ak ndax loo bëgg-bëgg te mënoo. ndax loo bëgg-bëgg ca mënoo. day ci yow lool. day metti ci yow lool. way li nga bëgg nak soko mané def ko day neex lool ci yow. kon nak yeen li ngeen bëgg. yalla ngeen ko mandé ci barka wëru mag wi nga xamni moy sax ramadaan mubaarak. ci barka seigne touba mi liggéelo Cheikh Ibra Fall. ak barkeb seex Ibra Fall mi liggéey Serigne Touba. nee tàmbali gi nag soxna soxna Cuba xoolam seet na ci guyu. ndax nee moom da yëgu ci dara. lu may. ñëwal ñu jébbal la sunu addiya ji. jébbal la it ànd bi. kon nag sa borom. na leen nungul liggéey bi. ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall. ngeen yàgg koo def lool. te ku gën ko fee man nag. yoon wi nag daa am lu baaxoo loo xam ni. bu doon am aada. ñu ne lii aada yoon wee. mooy yoon wi tànk kanam la am de. amul tànk ginnaaw. waaye loo ci def. kanam la ko borom di jëfe jëme kon nag lii ngeen def. yàlla jëm kanam de. ba lu ngeen ci bëgg. Serigne Touba ak Cheikh Ibra Fall defal la ko ci. nee na xolam seet na ci guy soppee sëñ fal yi. nee li ngeen ci doon wut. am ngeen ko ci de. muy ngërëmal sëriñ bi. ak xolam bu sedd. kon ne jërë ngeen jëf. kon nee mi nga ñaan mu yàgg lool. te ànd ak jàmm nag. nee jërë ngeen jëfati. nan fi bokk teewaat déwén la wax. kenn bañ a manqué ci ñun. su boba li ñuy bëgg yalla nañ ko gëna man ci barke borom liggey bi barke Cheikh ibrahim Fall ne jere gene jëf la am ay la ngir ngeen di jot video yi am solo yi bàyyeekoo fi ci sen sen daru Bairé Fall TV da ngay bëss fi ñu bind sabonné ba noppé nga tek ci kolos bi la ilaha daaru Bayré Fall TV, la première scène qui valorise la vie et l'œuvre de mu Ibrahim